di nuyu fa tabarakallahu suñu directeur général bi Serigne Sam mi nga xam ne moom la yàlla dogal tey mu jiitee li nga xam ne mooy seen seen YouTube bi di Salam Vision ànd ko yéen comme ni leen ko waxee woon ci bi ñu koy tàmbali ci annonce bi di jataayu mag yi fas yéenee képp koo xam ne moogu lislaam nga moogu diine nga ñuy ñëw sa kër seet si la waaye ñenn ñi ñu toog suñu xam ne mooy suñu place ñu recevoir leen comme ni ñu ko waxee woon ne anzilu nas manazilahum ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag seen émission bu mag boobu ñu koy wax Salam Vision ñu faral di ko seetaan ci suñu si émission YouTube bi di nekk ni ma koy waxee rek ni ko di leader nekk ci banlieue bi di ñaan yàlla rek yal yàlla gën a taxawu ko sàmm bi jaay seen ahma salaa salaam mu mel ni seen émission jotaay mag ñi tey lay doog a tàmbalee ngeen ànd ko ak seen xarit seen sopp Oustaz Ibrahima Diarra bu fa seenee ñëw nag ki nga xam ni sëriñam la kilifaam la la. fa séeré def première émission ak moom bu fi jógee incha allah rabi ñu def ak ñeneen émission waaye tey ñoo ngi biir kër Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu fekk fi setam bi nga xam ne maam Roqeedu si moom moo ko jur maam Roqeedu Serigne kër si moo ko jur setam boobu ne bu ñu ko waxee mooy Khalifa Ababacar Sall ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam di ko ñaanal yàlla yàlla taxawu ko di jéggulu nag ci toogaay bi ñu toogandoo ak yow bi dafa fekk ni sa rek waaye du yar du waaye tey Salam Vision moo la seet si woon ci jotaayu mag yi xanaa dañ lay def rek di la dalal rek di la jox rek nga nuyu àdduna nuyu mbokk internet bi ñu doog a dugg na ci yi nga xam ne moom mooy laaj kon bisimilah sëriñ bi. jërëjëf Oustaz may auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu nuyu askan yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa diaspora yëpp di kontaan lool dalal di ñu dalal ci Salam TV ah Salam Vision. Salam Salam Vision. Mm-hmm. ah télévision boo xam ni. ah, mm-hmm. ah dëgg-dëgg. am solo si euh, askan bi. naan kon kon ñu ko déggee noonu rek euh, sëriñ bi nuyoo na ñaan na yàlla yàlla na yàlla yokk télé bi di ñaanal suñu directeur général Serigne Sam yàlla na yàlla taxawu ko ak mboolem technicien yi mu mel ni kon sëriñ bi buñ la seet see tey jotaayu mag ñi la wax présenté na yomb na kan mooy sa yaay ñu ni soxna Rokhaya Roussi kan mooy sa maam Serigne Babacar si waaye mu mel ni du jaage danga nga xëcc askan bi mais danga ngaa xëcc jikku ji ñu am ay yëg ay ñu yëg yu yëg ci weewu béy bi am nga ay liggéey yooyu taxawal fa séenee nga def sa liggéeyu maam lu mel ni zawiya Serigne kër si boole ko institut islamique bi ñu laaj leen kon bi foofu foo noo ci tàmbale ak foo ci toll. waaw euh, wax. ak institut boobu. dafa nekk loo xam ni euh, fu mu nekk amatuñu benn préoccupation benn soxla tam bu dul loolu. ndax di si dox bu bu dégg ndax mbiru Sëñ Babacar. nekk na mbir moo xam ni. tànk kanam la am waaye amul tànk ginnaaw. te mbir moom. moo koy teel boppam. ndax dafa waxoon. ñu ni bu ma lamaan pandeen juróom. ñoo tere nekk wax boobu ñu bari dañ ko dégg. dafa am un don de Dieu. yàlla def te loolu nag mooy quelle que soit condition ak situation ni mu nekkee. ah yàlla daf koy wan leer a leer a leer. ñu mm. comprendre li wax boobu. Mm. loolu dafa ñëw ba fii. Mm. ndax euh, buñ koy tàmbali. ñu bare dañu amoon daal ragal du wax ni ragal la waaye daal dañu jaaxlewul daal parce que. ñu ngi daal gis dara loo xam ne rek lu war a mën a defar loolu. ma leen waaw nit ku nekk ak si gëm-gëm. waaye bu jotee. ak borom dina war a bokk ndax mbir mi moo ko teel bokk. effectivement bi dafa bis bu nekk da am lu lay. bis bu nekk te mu nekk nii. di ko dalee Europe. di ko dalee Amérique. maanaam bu mu yeboon diaspora bi. ñëpp def seen participation ak seen manifestation. kon si c' est encourageant. moo tax nag ñu ngi koy tàmbali nii. bisimilah rahmaani rahiim. a ah, ñu ñaan itam àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin. ñëpp fekkee kenn bañ a manqué ak waaw mu mel nii sëriñ bi dafa am loo wax léegi nii lu am solo. nga ni suñu maam sëriñ Baabu ko dafa ni su ma laman lu ma bu laman fàndal juróom juróom sax duma tere doon xalifa général général de Tijane. mu mel ni kon kooku am na ay may yu ko yàlla may wax nga ko léegi léegi nga wax ñu tuuti rek ci suñu maam Serigne Babacar ñu doog a dugg ci zawiya bi. waaw xam nga Serigne Serigne Babacar. Hmm. Hmm. ngay àgg. Hmm. ndax euh, bis bu nekk nga xam ndax ñun dañuy judd. ba am ñetti at mu làq. est kon kooku lu ñuy na lu ñuy wax si moom. Hmm. xëy na dañuy ko nattali. Hmm. ndax dama doon toog sama waajur bu jigéen moom mooy wax lu bari si moom. Hmm. sans sans amul benn intermédiaire mooy wax ah subaab kat nangam. sama bu jigéen mooy soxna Roxeetu yenn mu xaddam yi nga xam ne dañ ko jege woon loo xam ne ak li nga xam ne tam dañ koy nekk nga dégg si loo xam ne. lu xam ne. dëgg-dëgg xamoo ko. moo tax man la mbiram hmm. kenn mënu ci wax yi li ñu xam ne daal lu ñu wóor mooy nit yàlla pire hmm. parce que bu ma làqoo ba léegi mille neuf cent cinquante sept hmm. boobu seen mbiram dafa gën a moo tax waykat bi nii euh, xale yi sax ñoo gën a xam sëriñ Mbay. xale yi ci ginnaaw mbay xale yi ci ginnaaw mbay. gisuñu mbay. gisuñu mbay. dégguñu mbay dégguñu mbay. te koo ci wax mbay mooy maamam. moo moo moo mooy maamam. mu ne buur yàlla moo ko jagleel. waaw ah loolu loolu loolu moom loolu mooy tontu bi. ah dëgg la waaw mbiram daal. si ah. multi dimension. Ah. multi dimension ah. la. tey ko nit ñi gën a bëgg. Mhm. tey la ko nit ñi gën a xam te mhm. fekk lu ñu jamono. Mhm. waaw léegi comme ñu comme ñoo ci biir kër Serigne Babacar Sy. toogandoo ak surtout Serigne Babacar Sy mu tudd ñu tuddeewaat ko Serigne Babacar si di xalifa Ababacar Sall euh, jotaayu mag ñi comme ni ko Salam Vision defee rek nin la seetee tey noonu la ñuy seeti waat yeneen këru yeneen këru diine waaye tey ñu tàmbalee ci yow ñu fekk na nga sumba benn liggéey wax nañu ko léeg-léeg ba toog a tàmbalee mais liggéey bi fu mu toll Serigne bi loolu lañ bëgg a xam. Ah, liggéey boobu de ñu ngi ci toog bu baax. Hmm. xam naa ne nag tam dañu toog si euh, télé. Hmm. waaye liggéey ni mu ko tàmbalee. Hmm. yaa ngi gën a xam ndax <laughs> yaay coordinateur hmm. <laughs> jéego yi ñu def tam yëpp. Hmm. xam nga ko waaye nag comme dañuy wax ak euh, askanu senegal ak diaspora ak àddina. foog tam ah ñu am ñu si sànni. ndax boobu ba tey. Ah, ñu ngi def ay visite. ci yenn jullit yi. waaw jullit laa yor. yenn taalibe ci yaan même taalibe murid yi hmm. bu mu yaboon ni askanu Sénégal si wàllu diine ak wàllu tarixa kenn desu hmm. te koo dem tey moo la gën a yàqal hmm. man loolu moom gën a yëg koo dem tey moo gën a jël euh, kii day téléphone yi guddeeg bëccëg orange money yi ak lu nekk ñu yónnee vraiment ma xam ne sëñ Babacar Sy kenn liggéey bi nag euh, maanaam dañ ko tàmbali nii maanaam kii palaa pare na business plan yëpp pare na. Hmm. bon am na itam ay dons yu bare. waaye hmm. nag liggéey bala muy tàmbali dëgg. Hmm. le 9 janvier la. ndax le janvier mooy pose de la première pierre de la Zawiya. et de l' institut islamique Serigne Babacar kon loolu mbiru mbiru mbiru Salam Vision la. waaw loolu le 9 janvier Salam Vision dinañoo couvrir ko. ah ànd koog yow ànd koog njaboot gi yëpp. waaw kon ñu dégg ko noonu sëriñ bi nee na le 9 janvier mooy pose première pierre bi. ñu bàyyi ko mu continuer. te ki koy pose itam. muy mm-hmm. nit nit koo xam ni. Mm. gaynde la ci wàllu tariqa. Mm. Mm. nit yàlla piir la. koo xam nitam itam. bi aydu bi jaral na lu nekk. muy sëriñ Habib Gueye. général sëriñ Mouhamadou Mansour. général boo gisee ñu def nag suñu choix si moom. Mm-hmm. ndax ni mu porté combat bi. Mm-hmm. ah gis ñu daal ku ko porté moom. Mm-hmm. ndax bi ñu demee ba yëgal ko ko rek. moom def moo jël yëpp en responsabilité. ñu si daw. dina si def ay ñaan. dina si def lu nekk képp koo xam ne xam na la ndax lii. Euh, zawiyam la. ndax alalu sëriñ Babacar Si nee na alalam la. te lu lu mu ko jarul am. te mu nekk dëgg boobu ba tey nag bis bu nekk dañuy woo téléphone di nemmeeku di seet fu ñu toll covid bi nag moo taxoon euh, lu bari mun ñu koon def ndax jàppoon nañu dat waaye bu covid bi ñëwee muy nañ ko teg suuf daal parce que tam euh, maanaam autorités yi kenn mënu ci comme day jël ay mesures barrières jël tam ay mesures te loolu yëpp bu ñu ko jëlee tam pour sauver population la ndax ñu màcc ci wàllu woowu muy docteur ak yooyu ñoom dañu tëral daal benn plan boo xam ni. ah buñ ko toppee rek. macha allah presque mi ngi dem nag ba. maanaam daal jeexal bi moo des. ah te yal na ko yàlla jël daal mu dem. si jàmm mu dem a dem a dem ba kenn doon ko waaw moom nag. Euh, ñu ko ko wax ko ko. te bu soobee yàlla daañu def délégation dem seeti ah, dana waxtaan ak moom daal. waaw bu may ni déggoon nañ ci wéyu boy tamit ku mel ni sëñ Abdou Euh, war nga seeti. waaw moom euh, sëñ Abdou Karim. kenn ah, la si waaw uh-huh. kenn la si ñun kenn parce que keroog bi ko Cheikh Amadou Bamba ma topp. Uh-huh. wax ko ko. Uh-huh. mu rafetlu ko loolu ndax dafa defoon benn geste. ak suñu ay kilifa. ndax mos na bind kaamil. ba mu àgg. jox ko sëñ Mouhamadou Mansour. ah bu ko fekkee ñu ni yaa def nii alxuraan. Ah, yaa def nii lu tedd ni alxuraan jël la jël la ko Karim jox na ma Karim. waaw Karim na ma Karim. waaw mu ah. ñoom xam nga ñoom nen lañu. Ah, seen mbokk ci benn la ci dara. dëgg la ndax tey ñoo bokk benn maam. kon nag euh, Touba. Hmm. dañuy dañuy dañu réer rek waaye ci Touba ak mm. Tiwaawan ëmbante wuñu réerante wuñu mm. te diine ji benn la tam mm. moom tam buñ ko contacté mu rafetlu ko lool soo yàlla bis boobu tam dafay bokk si pareil waaw ak yeneen tam kilifa yoo xam ne ñooñu waxoon seen tur moom daal bokk ni si pareil yoo xam ne moom léegi dégg moom lañ jëkk choisir daal euh, xam nga euh, juma Ah, doom be benn nit mënu ko tabax zawiya benn nit mënu ko tabax soo xoolee jumaa Tuubaa bi Sëñ Muntaxa rek mu mënoon na ko defar yàlla may na ko daraja jooju mais teewul mu def appel université bu mag bi muy tabax bi muy indi quatre-vingt-dix-neuf milliards bi at ni bu koy dégg kenn ku ne dugg na ci loxoom barki dee moo njaay xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour moom it def na appel ci jumaa ji ñu ngi xaar yow ba xam ndax da ngay def appel wala déet waaw am nga mbir moo xam ne du sa mbir yow te oustaz bi jàng yi xam nga ni. juma mm-hmm. benn nit mënul. Mm-hmm. même bu ko mënee tam soppuñu ko ci daal. Mm-hmm. ku nekk def sa participation. bu boobaa noonu la ko yàlla ku nekk gis sa bopp. waaw moo tax tam benn nit rek mënoon na ko tabax ndax am nañu ay naar yoo xam ne nekk ci émirat arabe. ñoom yàlla xam ne dañu waxoon ni ñoom dañu rek ñu tabax waaye nag ñun préféré wu loolu hmm. ndax ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew hmm. ñoo gën a am sax euh, dévotion ñoo gën a taxaw sax pour suñu réew maa ngi ci waxtaan hmm. muy moom ko dee si àddina mooy taxaw jàkkale wala wala ci wax ñu moom loolu rek muy lii cent pour cent si ma ne ko loolu nag loo si mën daal nga def waaye itam daal nga bàyyi itam day def seen participation. kon su ma déggee kon nga def appel. ci lu dañ ko def si au nom de tout la umma. di ko def au nom de l'islam. waaw ak ñeneen ñi sax. boobaa ah ku nekk boo si defee sa dërëm. nekk na loo xam ne defaloo ma ko waaye dafa defal yàlla. ah te képp yàlla nee na képp ku ma tabaxal kër. si àdduna yàlla fay daa ko fay si àjjana. waaw ah, kon nag euh, loolu avantage la boo xam ni. Hmm. ñu fi def seen dërëm xam ne li ñu def lan la. Hmm. waaye ñëpp daal taxaw nañu. Hmm. muy France muy Amérique muy dëkk yoo xam ne sax. gën sori. ñu déggee mbiru daal ñoom ñëpp taxaw nañu daal dañuy xaar inauguration bi. am nañu commencé di euh, kii sax des participations. mais xam naa bis bu. defee tabaxee euh, pose première pierre boo wootee. Mm-hmm. bis boobu tam woote la. Mm-hmm. pour woo taalibe Tijaan yëpp. Mm-hmm. en particulier ak yeneen jullit yëpp. jaamu yàlla yëpp ñu ngi fekkee fekkee mbir mi la. Ah. kon euh, comme euh, ñu fàttali leen rek yeneen seen émission jotaay mag ñi ànd kooku Oustaz Ibrahima Diarra mu seet si Khalifa Ababacar Sall. di di sëtu Serigne Babacar Sy. comme ni ko faral di waxee mun mun liggéey liggéey bu am solo. ci mu nekk ci liggéey bu am solo fa seenee taxaw tabax zoya waaye tabax tamit fu ñuy tabaxee doomu aadama muy institut muy xam-xam euh, te nit bu amul xam-xam du du du doxal dara te kon fi fi maamam tegoon tànkam fa la teg ay tànkam fi bàyyam tegoon tànkam fa la teg tànkam ñu koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam waaye mu mel ni sëñ bi kilifa diine nga nga représenté fi Seydina Mouhamed jamono yàggul dara ñu caricaturé fii Seydina Mouhamed président yu bare réagir ñu dem ba tey suñu président doog réagir loo wax ci discours bi tant que kilifa diine. waaw xam nga euh, euh, discours bu baax la. ndax moom loolu ñoo ngi def moom àndul si loolu. ak ñi nekk ku nekk. war na défendre l'islam surtout moom ndax jullit la kon nag tubaab bu ñu waxee wax yooyu ah ñun dañuy condamné loolu di ko metti di ko naqaru waaye dëj bi borom mën na jooy moo mën na jooy dëj te képp koo xam ne yaa ngi euh, diingat l'islam mais lii du du nekk loo xam ne lu bees la lii dafa mos mm. ndax l'islam bi ñu koy sos mm. boobu kenn ñemewul woon nodd kenn ñemewul woon tudd lislaam hmm. dañu daan làq di ko dégg bi Seydina Omar ñëwee hmm. si lañu soog a ñeme di nodd hmm. di bérél lislaam euh, loolu nag moo ñëw ba léegi ndax ñi noonu lislaam yi ba tey ñu ngi seen sëddi ñu ngi nekk ñu waaye seen sëddi ñu ngi kon nag jii nga lislaam nekk na loo xam ne nekkul loo xam ne lu extraordinaire parce que lu mës a am la dëgg set dafa mel ni naturel. Mm. ah bu toll nag président français di diine l'islam mm. ah loolu toll na te toll daal baax. Mm. képp koo xam ne nag yaa ngi ànd ak si moom. da ngay dugg si daanaka daal moo gën a bon sax yéegu. innal munaafiquuna fi darkil asfali waaw ah. muy noonu. daanaka da nga fekk ci suuf safara laa lay dugal. suuf safara kon ñoom ñoo gën a métti li yëfee yi. ñoo gën a gën a métti li yëfee. yéen a ci àll musal moo gën a bari nag léegi. est-ce que. parce que dama doon waxtaan ak sama benn xarit bu ñu ma. Hmm. jamono jii daal kenn hmm. xamul looy def. Hmm. parce que ñi nga xam am na bu ñu tuddee Abdullah wala mu tudd Mouhamad. boo ko rey dañuy wax ni rey ñu julli hmm. waaye boobu bàyyi itam bàyyi yéegal ndax def ñu daara loo xam ne rek hmm. luy màndargaal jullite kon nga xam ne daal adduna yi doy parce que hmm. daal naafeq yi daal ñoo rax si l'islam te yéen ñoo ko def waaw ndax franc-maçon yi dëgg-dëgg itam dañu jóg di xeex l'islam yeneen itam di xeex l'islam waaye ñii xeex l'islam dëgg mooy jullit ndax li yàlla waxoon nañu wala tafaraq bu leen xaajul. waaw tasimu bi hamdillahi jami'an ngeen jàppoo si buumu dëkko bi. Ah. ba ngeen xaajul. Hmm. ay xaajul bari. mais di xaajoo boobu lu ko waral xëcc bi fii. murid bi xaadir bi laayeen bi tijaan bi. lu ko waral loolu lu ko indi ak. lan may lan mooy lan mooy cëslaam lan mooy cësaan li daal. sëñ Babacar waxoon nañ nee na jamono bi ñëw. Hmm. nee na dërëm ak daraja. Hmm. nee na dina xaajale ñëpp. loolu nag moo am parce que lépp itam affaire dara jëloon. te man li ma jaaxal mooy murid bi tijaan bi xaadir bi ñoom ñëpp benn baat la ñuy wax muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. ñoo nekk benn. waaw lan moo waral kon kiiw te wax nga léegi léegi nii naafeq dafa bare te Seydina Muhammad dafa ne ayatul munafiquna salaasa isa xadasa kasaba wa isa waxar alxafa wa isa utmina xaana mu mel ni kon ñett yi mu waxoon yëpp boo ko xoolee ci biir société bi yaa ngi koy gis ci biir yaa ngi koy gis ci biir jaam yi isa xarasa kasaba lu mu la wax du dëkk léegi mel ni léegi fen bi dafa gën a bare da ngay gis ñu demee nekk fii nga woo ko téléphone mun la maa ngi Ziguinchor wala maa ngi Kaolack sëriñ bi yow loolu feebar boobu lan moo ciy pexe fen boobu nag gis nga feebar boobu hmm. moo yàq senegal moo yàq àdduna hmm. que nit bu la wax euh, lu mat quatre vingt cent hmm. yëpp bu la waxee wax lu nekk si ginnaaw dëkk xam loolu dafa garaaw te fen moo gën a jaal bàkkaaru fen mm. moo gën a garaaw njoola njaaloo mm. te fen la ñu fooy mm. fen nag réew mu am amul dëkk boobu dafa tàkk waaw si nga fen bi sax bari na mais tamit sëriñ bi dañ gis tamit nag koo wóolu tamit mu war la wa isa awaada xaafa koo wóolu ba jox ko sa su koo xam moom mu ni miir dañuy wax te ñu gisuguñu miir bu wax doomu aadama yi ñooy wax moo tax man euh, euh, naa yi ñoo mm-hmm. ëpp si lislaam moo waral nag mu la fen parce que du wax dëgg ndax nit ku ragal yàlla dëgg dëgg dëgg. Mhm. ndax eh, am na ku ma fi ñëw si yonent sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ñu ko ndax jullit dina njaalu. mu mhm. ne waaw mu ne ko jullit dina sàcc. waaw dina sàcc. bu ñu ko yëmalee li fi waaw jullit est dina fen. def na ko laa. laa laa lenn rek moo mën a yëngal. Eh, aras aras muy fen. pour dëggal la rek sëriñ bi yéen bi saa sala wax ne ala unabbiukum bi akbaril kabaa'ira ñu ni ko balla mu ne al ishraaku billahi wa huquuqu waalidayni wa qawlu zuur te nag bi muy wax ne wa qawlu zuur nii la defoon wa qawlu zuur ba mujj gi dafa jug toog naan wa qawlu zuur ba saxaaba yi naan ko layinta sakkanta mo naan ko doon noppil dalal mu naan wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg mu mel ni kon sëriñ bi kontaan nañu ci émission bi ñu def ak yow te yaakaar naa ne ñoo ngi jëm ci jeexantalu mbir mi fa tabaarakallahu dina ñaanal yal na yàlla gën a gudd sa fan léegi lan ngay wax léegi waa salaan Vision ak lan ngay ñaanal ëttu ëttu mag ñi mu jëm ci kanam. ah sa wax daal. moom hmm. benn wax rek. Hmm. ndax nit loolu yaa ngi ci ay fo. loolu hmm. yaa ngi ci leneen. Hmm. waaye yàlla xiir leen. Hmm. Ah, ñuy def. maanaam mbiru diine. te mbiru diine tànku kanam la am. amul tànku ginnaaw. donc lii ñuy def dañ leen di gën a ñaax rek. di gën a ñaax. mu jëm ci kanam rek. Salam Vision nekk ci télé yi nga xam ni. Ah, te am naa yaakaar na ndax kii nga xam ne mooy directeur général bi di ko diriger. nit ku am fulaak fayda. te xame wuñ ko caaxaan te ku am détermination. boo gisee nii nga xam loolu si moom. te gëm naa ni. ah ku gëm boppam la te lii. maa la wax loolu daañu ko waxaat kanam lay jëm waaye du dellu du am te lu wér laa ci xam. loo wax jotaay boobu nag bëggoon na moom kontaan nañ si loolu. ndax tam du bu masu dérangement bu mu. ñoo ngi fekk si. ñoo yaay suñu sëriñ ñoo ko waroon fekk si. yaay suñu sëriñ waaw vraiment ñu kontaan si loolu. te bu hmm. ñaanal yàlla may ko hmm. ndaw. bu hmm. sawar la. bu baax la yàlla may ko gudd fan. may ko wér ak équipe am ak staff am lépp moom am. salaam daal si kanam. Ah. comme ñu ko waxee jàmm rek. Ah. jàmm rek ah. si kanam. kon comme ngeen ko bokk déggandoo ñëpp ñu tey ñooy woon kër Serigne Babacar Sy ñu fekk fii Khalifa Ababacar Sall ibnu Roqeytu Sy ibnu Serigne Babacar ibnu Cheikh Seydi Hadji Malick ibnu démb bunda di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanaan tey seen émission salaam euh, ak jotaay mag yi ànd ak Salam Vision ci chaîne YouTube bu mag boobu di chaîne la leader fii ci pikin ci banlieue bi ànd ko suñu directeur général euh, Serigne Sam Seck yal na yàlla guddal fanam ànd ko suñu chef technique bi muy Ibrahima Khalilulaay mi nga xam ne moo ànd ñun réaliser ko nii di ko ñaanal yal na yàlla taxawal ko comme ni leen ko faral di waxee rek seen oustaz seen xarit seen doomu ndey seen soppe seen lépp fa séenee ànd ak yéen jataay mag yi ci yeneen jataay tey ñoo ngi woon kër Serigne Babacar waaye bii di ñëw incha allah rabbi surprise lay doon bu ñëwee ba ci bis bu daan leen wax dem jataay juy nekk waaye ñoo ngi seede ci muqaddam yi kenn yi ci cheikhu cheikhul xaddim yi jàmbaar yàlla jooju waaye bàyyi Serigne Sali boog Mourtada ak Abdoulahat ak kooku la ñuy seeti mu wax ñu ci ki nga xamante moom mooy cheikhul xaddim wax ñu tamit ci li nga xamante moom mooy liggéeyu li nga xam ne liggéey na ko ci kaw suuf ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq seen sopp seen xarit Oustaz Ibrahima Diarra wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.